ci bi ñuy waxtaan ak liggéeykat yi dañ leen doon ñaax pour ku ci nekk ci ñoom xam ni tey jii suñu bërëbu liggéeyukaay muy post dafa nekk en guerre le mot n'est pas de trop poste dafa nekk en guerre euh, di combattre en tout cas pour sa survie dafa nekk en guerre di combattre contre les difficultés yi koy assaillir di assaillir ses travailleurs et sa clientèle mais guerre boobu noonu nag jàpp nañu ni yaakaar mën na ci am ñu gañe ko parce que dañu gis ni contexte bi mu tollool dafa fekk ñu changer un régime avec des dirigeants qui viennent ak benn projet de société maanaam fexe ba tabax Sénégal bu moom boppam ci wàllu en tout cas monnaie moom boppam en tout cas ci wàllu économie mais Sénégal boo xam ne dafa juste que doomu réew bu nekk en tout cas gis ci boppam mais Sénégal bu naat loolu nag mënuloo ko def sans pour autant nga am structure bu dëgër bu taxaw comme poste parce que réew yi nga xam ne ñoo ko am yëpp boo demee tey xayma seen poste da ngay gis poste yu taxaw lañ poste yoo xam ne dañuy wasaare ay ay wareef ci population yi poste yoo xam ne dañuy jege population yi di leen di jébbal ay service de qualité tey bu dee dañu bëgg a asseoir une souveraineté monétaire ci yan structure en tout cas financière la ñuy appuyé wu doo ma wax ay banques parce que la quasi totalité des banques c'est détenu en tout cas par de nation partenaires te jàpp naa ni lii nga xam ne moom la ñu bëgg pour moom suñu bopp benn partenaire du ko bëgg parce que seen njëriñ nekku ci njëriñu Sénégal moo ciy nekk nga am une structure boo xam ne dafa am banqaas boo xam ne day yëngu ci wàllu koom wàllu xaalis muy pos nekk fépp di def inclusion financière maanaam boddiwul en tout cas benn sénégalais parce que am na ou bien amul mu mën a ñëw en tout cas def ay transactions mën a épargner mën a def lépp poste rek moom moo ko mën mais beneen bi sur le plan en tout cas économique poste levier la de croissance économique et, et sociale. En ce sens que, au-delà en tout cas de tout ce que peut apporter la pos tey poste mu ngi fépp en tout cas ci Sénégal la preuve bi ñu amee difficulté tey jii nii pàcc boo jël en tout cas ci population sénégalaise am na problème boo ko jëlee ci suñu yaay yi ak suñu papa yi liggéey ba retraité nekk ay pensionnaire doon jëflante ak poste bi ñu demee ba IPRES bi nga xam ne dafa waroon nekk en tout cas partenaire poste de manière en tout cas unilatérale dagg konvention bi nga xam ne moom la ñu amoon ak moom loolu dafa jur lu bëri ay jafejafe jafe ci ñi nga xam ne dañuy fayeku pension parfois avec des retards am na ci ñoo xam ne sax fayekootuñ loolu dañu ko war a delloo si waat mais beneen pàcc bi moom mooy que ni tey jii nii boo demee ay Casamance et dans les cantonnements militaires fa ñu nekk ci àll bi poste leen gën a jege ka ay banque tey jii nii seen moral dafay damm bu poste amee problème parce que ñu ci bëri seen salaire poste lañ ko domicilier woon bi mu amee problème ñi nga xam ne mënuñu ci muñ dañu dem ci banque yi mais bu ñu waree dem feeku ji parfois il peut mettre deux jours trois jours loolu mën nga ko natt ci enseignant nga xam ne ñu ngi fépp Sénégal fépp fu ñu nekk poste leen gën a jege donc politique boobu noonu ñuy woote ak projet de société boobu noonu ñun jàpp nañu ni pour ñu mën ko wasaare jëmmal ko il faut que ñu xool problème post bi lijjanti ko am na nag lu ñu tàmbali ak DG bi fi jóge woon ñuy koy en tout cas encourager parce que am na lu mu jot a def en tout cas en terme de dialogue social en toute sérénité am na lu ñu jot a jot a jot a liggéey ak moom am na ku ñëw ki ñëw postier la xam na bu baax jafe-jafe poste yi xam na li ko andi xam na conséquences yi ci biir kër gi ak ki Sénégal donc kooku bu fekkee ne poussière yëpp en tout cas mobiliser wu nañ ñu jàppale ko mais aussi ñu jéem a xayma ci lu lu lu wër ah muy diagnostic opérationnel et financier de la poste xam difficulté yi fan la nekk ban ampleur la am pour mën a ko jël à bras le corps régler ko pour poste mën a doxaan